arma jël na booy tànk booy waar booy waar maa doo dem booy waar jël nañ sa tànk booy waar daa bëgg a rëcc da ngay dem goreel daan na ko arma daan na booy waar booy waar waaru na waaru na fa euh, il n'est pas démérité da dem goreel daan na ko arma daan na